gu Thiès prison Thiès pour mën a ñëw euh, dimbali suñu sœurs yi nga xamante ni ñoo fi nekk te bàyyiwuñ fi seen bopp nag di leen xalaat tout le temps activité bu ñuy def aussi dañ leen ciy dugal euh, moo tax ñu ne tey ji balaa ñu dem di defi béti dépistage ci yeneen i kii ak suñu moyen nañ ñëw def ko fii au niveau de la prison pour mën leen a jàppale ñoom tam parce que elles font partie du lot waaw looloo tax ñu choisir euh, la prison de Thiès pour mën a ñëw def activité bi donc ñu ci profité di ñeneen ñi nga xamante ni mën nañu ko balaa ñoo dem di def fi yeneen activité feneen ñu xalaat ni am na seen frère ak seeni sœur yoo xamante ni mënuñu demal seen bopp mënuñu jugal seen bopp il faut qu'on réfléchisse à leur place il faut que tamit ñuy mën a activité à leur endroit loolu moo tax euh, ñuy woote képp koo xam ne daal bon volonté nga war ngaa mën a ñëw jàppale leen nga ñëw jàppale leen ci lii nga xamante ni ñoo